loolu waxi ah? loolu du laaj. Ah. loolu du question. booy ñaar kay bu mëntoon a yëngal bal booy ñaar bu mëntoon a yëngal Balla Gaye kenn du jël avance am di ko jox Balla Gaye yow fekk Balla Gaye fu mu taxaw ngeen attaqué ko. loolu moom ba lamb ja rek ah. am na loo xam ne jarul di wax. jëf mi ñëw bu ñëwee dinañ jëf ñu gis. am na loo xam ne garaawul. yàggatul incha allahu rabbi dimanche yàlla nañ ci yàlla ñu gis Youssou Ndour def benn sortie di la classe. classe la wax lan. la ban classe ñoom ñoo ñu gën a bëri wax téeméeri junni yoon. ñoom bu dee ñoom wax ak wax ñoom ñoo ci toog. waaw ñun waxuñu ba léegi dañuy tontu. comme li ma waxoon rek toujours ku jot. dañ leen di bàyyi ñu wax ñu tontu leen man loolu rek laa seqal ñoom mais mosuma jël di wax leen loo xam ne man maa koy jël di ko waxal sama dama leen di degg ñu wax ma tontu leen kon ñoom ku gën a bëri wax kii wax ak <laughs> kii tontu. kii wax gën a bëri wax. mais combat bi dañ si xeex. lamb ji lu ne man na cee am. Ah. waaw combat la lu ne mën na cee am. yàlla daal la ñuy ñaan mu may ñu ndam ndax moo yor ndam te di ko maye. waaw mais dinañ si xaar niil niil nag. niil mënu cee am non loolu moom déggoo lamb ñett ya fi am. Ah. daan daanu mat si niil. yal na nu yàlla may ndam ñun. mais lu amateur yi bëgg mooy ñaari mbër yi ñëw bëre ku si yàlla may ndam nga jël. mais incha allahu rabi dañuy bëre. dëgg la dañuy bëre incha allah. ñu ngi lay jaajëfal. jaajëf sama waay. jaajëf mais suñu open presse bi suba ak ngi woo jàppaaculi national international yëpp ñu ngi leen di woo di leen wax ne ak waa Pikine Diourbel Thiès ñëpp leen di woo suba jàmm stade Alassane Djigo. stade Alassane Djigo fa la Boy sam ku teew di nga gis ay surprise yu garaaw. kan moo koy animé kan moo géwél yëpp géwél yëpp yëpp. ndax ñun ay géwél lañu ñu ngi wax suñu mbokki géwél yëpp bàyyiwuñu kenn. ndeysaan ñu ngi a jaajëfal jaajëf jaajëf jaajëf. loo nekk. sant bu baax. soxna maa ngi lay jaajëfal. waaw tey da indi woon booy mbuur waaw mais Boy Mbour yàlla na ko yàlla defet bi jik ko yàlla defal ko bu amaatee beneen combat yàlla may ko ndam sport la rek lu waa sport la da ngay am tey suba nga ñàkk mbaa nga ñàkk tey suba nga am loolu rek la yàlla di dogal ñu ngi koy ñaanal li ci kanamam lépp doon leer waaw moom xale la demagul fenn. Cheikh Niang Boy Niang ngeen jëm le premier combat de tous les dangers. waaw combat de tous les dangers loolu nangu nan ko waaye dañuy ñaan yàlla mi nga xam ne mooy oyofal lépp te mën lépp mu may ñu ndam. ndax yàlla mën na lépp te mooy borom lépp. gone géejawaay gi ngeen am de. moom gone Pikine gi la am. Balla Gaye day bëre ñetti revanche. gis nga de day bëre ñetti revanche kon xam na moom kon moom moom baax na. li muy eh. bëre Gaye ëpp na sax ñetti revanche. Boy Niang dafa dugg biir fii écrit Balla Gaye daan fa les deux. waaw daan rakam mu war a ñëw. Boy Niang mu mag c'est c'est turandoo Boy Niang daan turandoo Balla Gaye muy bëre moom ñetti. loolu la yàlla dogal. te yàlla suñ borom mi dogal loolu mën naa dogal leneen loolu moom la suñu borom dogal yàlla suñ combat bi Balla Gaye ci bakkanam ñun de xaw ma moom mi nga xam ne moom moo moo moom moo jeexal ci làmb ji war a génn ki war a génn moom bu fekkee moo ci teg bakkanam waxuma laa ne kii door a door mën na koo jur jur papaam la mën na koo jur da koo magee quatre na ko 30 ans doo bàyyi li ngay ay doo ma bàyyi yéen yéen a sax yooyu garaawul moom mi ngi ci làmb yooyu yëpp xooluñu ko ci moom xam nga lu ñuy ñaan ñëw dimanche fii duma ko daan ko incha allah. mais Boy Niang li mu signature est-ce que dina ko bëri. ma ne li ci kanam rawu bët nee bu jëf ñëwee wax day toxu wax ji moom jeex na léegi jëfa des incha allah rabi dimanche fii dina leer te yàlla nañu suñu borom may ndap ndax moo ko yor. mais dama ne la Cheikh Niang damaa gis Boy Niang indi ci combat bi loo xam ne mosut a ñëw ñëw ërtal Balla Gaye mayu ko dara taxaw fi Balla Gaye daan taxawoo. mais xale la Balla loolu la daan def ay magam ay rakam dañuy ñëw def ko ko parce que Boy Niang moo toll foofu. mais est def fii dina ko dina ko bëri ndax Boy Niang dañoo gis. ma ne buy bëree ay poids lourd day am problème. waaw léegi yooyu yëpp garaaw li ci kalam rawu li bët ba bis ndax dañ ko jox ñaari examen mu perte ko te Balla Gaye moo gën a. non yooyu garaawul yooyu yooyu ay wax ju yàqu la nit kee mën na koo daan mu daan kële nit mën naa daan kii te du mën a daan kee yooyu ay wax la rek incha allahu rabi dimanche soreetugul yàlla na nu a mel da ngeen a <laughs> lamb ji fi ngeen ko teg. yàlla yàlla nu yàlla lafal cat daal la ñuy wax yàlla nu yàlla lafal cat te may nu wér ba dimanche incha allah rabbi ñëpp fekkee. yàlla sa digganteeg sorti bis nga door ko mu daanu foo jëm. waaw mais maa ngi fi rek pour ñëpp maa ngi fi pour ñëpp man maa ngi fi pour ñëpp maa ngi daal l'instant maa ngi ci sama rak di ko jàppale di ñaan yàlla yàlla may ko ndam di nuyu Bombardier au passage sama xalifa di ko ñaanal moom it combat bii mu jub moog Tapha Tine yàlla na ko ci yàlla defal ndam lu rëy rëy rëy boobu du yomb ndax man it aw ma ko moom boobu du yomb de waa ñun ki yor moom ki yor ki ñu yor kaani la Bombardier ku ne xam ne ne daraam seddul te daraam du yomb insha allahu rabbi waaye Bombardier la ngay may wax B52 bi le roi des arènes deux fois borom guddi